asalaamaaleykum maa ngi tudd Mahmoudou Ba élève du lycée Ahmadou Ndack Seck bon tey suñu teewaay li ko waral mooy dañoo am lu ñu dañoo am naqar bu rëy parce que ñun ay élèves la ñun ñëpp ñu ngi war a ñëw jàng mais professeurs yi dañuy grève parce que gouvernement bi respecté wul accords yi ñu am ak ñoom te loolu day répercuté wu ci ñun. état bi la ak professeurs yi état bi la ak professeurs yi. professeurs ni ñu grévé baaxul déjà professeurs ni ñu grévé baaxul parce que dañu poussé élèves yi au bout. léegi élèves yi ñooy mujjee génn di grève man ñun suñ buñu ñu sañoon ñu changé beneen façon de système bu ñuy grévé boo xamante ni gouvernement bi dina yëg seen métit te ñun kenn duñu noot